inna lillahi lañuy ñuy waxati wa inna ilay jiraajaxoon li nax sin saayixatil mawti lu ñu gëm la teyit lu ñu nangu la waaye géej defati na maninam xale bii di amadu Dieng tollu rekk ci fukki at dong ak juróom-ñaar yaayam di wuyoo ci turu ña dëkk fële ca cité Doudou Bass moom Amadou nekkoon xale bu taq yaayam xale bu bëggoon yaayam doon jàng samedi la fi jóge dem dëkku pàppaam ci xew buñ fa amoon ngir dem nemmeeku ji ay mbokkam ba xew ba jàllee samdi dimanche altine mu ànd aki moroomam dem ci seen géej yooyu di fo fa la ko yàlla suñu boroom daldi moome njabootu King Production ñépp ñoo ngi àndandoo di jaale umu ndax day mbokk di xarit di dëkkandoo doon ku jàmbaare ci wàllum animation bi mu nekk nekk ab animatrice waaye it nekk artiste comédienne liggéeyandoo fee nag ku ci mel ni Yoro Peul Nandite liggéey ci télé fulbe bi kon ummu ñi ngi lay ñaanal sa doom jooju di Amadou Dieng mu dëddoo la ak jàmm aduna heli wali jali so wona mo yali dañata ko ñaami so wona